ñu fas yéene di gëstu ci téere bi nga xam ne moo nekk al axdari ci bunt bi nga xam ne mooy bunt julli muy wax ni lissalaati nuurun azimun tashruqu bihi qulubul musallin wala yanaaluhu ila alxaashicuun lissalaati julli am na nuurun leer goo xam ne azimun leer gu màgg la julli dafa am leer gu màgg goo xam ne gii moo ci nekk tashruqu bihi dina ci leerloo ci leeru julli googu qulubul musallin xolub jullikat yi wala yanaaluhu waaye nag munta am leerub julli illa alxaashicuuna lu dul ñi nga xam ne dañuy toroxlu ci seenu julli fa ida atayta jamono boo ñëwee ila salaati jëm si ci julli fa farrix xalbaka na nga raxas sa xol min dunya ci àdduna wa ma fiha ak lépp lu nekk ci àdduna wastaqil te nga soxla woo bi muraqabati mawlaaka ci di surveiller yàlla allazi yàlla mi nga xam ne tusalli yaa ngi julli li wajhihi ngir jëmmam wa ataqit na nga fas ci sa xol ne anna salaata julli xushuun toroxlu la wa tawaaduun ak suufe suufelu lillaahi ngir yàlla subhaanahu tudd naa sellam ci naka bil qiyaam ci jog bi ngay jog di taxaw te julli jamono bi ngay taxaw yaa ngi remplacer montagne yi ci seen taxawaay wa rukuuci ak rukuu jamono bi ngay julli soo rukuuci yaa ngi remplacer jur gi ci seeni taxawaay wa sujuudi ak sujuud jamono boo sujooti yaa ngi remplacer lépp loo xam ne lii dafay law ci koo suuf wa ijlaalun ak màggal wa taatimun ak màggal itam lahu ñe al yàlla bi takbiir ci allahu akbar yi ngay wax wa tasbiix ak subhaanallahi yi ngay wax wa zikri ak alquran bi nga xam ne yaa ngi koy jàng kon yële say cër ñoo koy def waaye yii say làmmiñ ñoo koy def fa xaafis na nga wattu ala salaatika sa maanaam ci sa julli gi fa innaha ndax jullikat a'zamul ibadaati moo gën a màgg ci xeeti jaamu yàlla yi kon wala tatruki sheytaana bul bàyyi sheytaane yalabu muy fooye bi qalbika sa xol wa yashqaluka ba mu lay soxlawoo an salaatika ngay xalaat leneen di bàyyi sa julli xatta yatmisa ba mu bañ a fay lëndëm xalbaka sa xol wa yaxrimaka su ko defee mu lay xañ min lassati anwaari salaati ci neexaayu leeru julli kon fa alayka dina war bi dawaamil xushuuci nga sax ci toroxlu fiha ci julli gi fa innaha ndax julli goo xam ne dafa ànd ak toroxlu tanha dafay tere boroom anil fahshaai ci lu ñaaw wal munkari ak lu bon bi sababil xushuuci ngir sabab su toroxlu fiiha ci julli gi kon fastain na nga sàkku ndimbal billaahi ci yàlla ci sa julli gi innahu ndax yàlla kat xayru mustaanin moo gën ci képp koo xam ne kii mën nañuy sàkku ndimbal ci moom faslun lii itam beneen buntu la jëm ci julli ba léegi li salaatil mafruda sabaatu axwaalin murattabatin tuaddaa alayha arbaatun minha ala alwujub wa thalaathatun ala istihbaab nee na li salaati almafruda julli yi ñu farataal dafa am sab'atu axwaalin juróom ñaari yëf murattabatin yoo xam ne dañu koo toftale tuwaddaa alayha arbaatun minha ala alwujub ñeent yi dinañu ko joxe ndax dafa war wa thalaathatun ñett yi dinañu ko moom ñett yi dinañu ko joxe ala alistihbaab ndax lu ñu sopp la doonut lu ñu lu war waaye dañu koo sopp fa lati ñeent yi nga xam ne alal wujub bi dafa war awaluha ba ca njëkk alqiyaamu mooy nga jóg taxaw bi xayri istinaadin te wéruwuloo ci dara jóg taxaw te doo wéru soo ko mënul summa alqiyaamu nga jóg taxaw bi istinaadin te dal di wéru summa aljuluusu ak toog bi xayri istinaadin te doo wéru te doo wéru fan soo ko mënul sumal juloosu nga dal di toog bistinaadin dal di wéru fa tartiibu toftale gi ngay toftale bayna hadihi al arbaati diggante ñeent yooyu ala al wujubi loolu moom lu war la ida qadara ala xaalatin minha bu fekkee ñeent yooyu mën nga ci dara wa salla bi xaalatin duunaha te nga julli ci beneen façon bu bokkul ak yooyu batalat salaatuhu ki def loolu jullim dafay dal di yàqu wa salaasatu ñett yi nga xam ne wa salaasatu lati ñett yi nga xam ne alal istihbaab dafa war maanaam wala dañu koo sopp xëy moom an yusalliya mooy mu julli al aajisu ki nga xam ne dafa tële ala hadihi salaasati ci ñett yi ka mënut ñeent yële mu wax la kooku mën nay julli ci ñett yi nga xam ne al madkurati moom la ñuy tudd ba ci njëkk mooy ala janbihi mu tëddee ko te ndeyjooram ala janbihi al ayman mu tëddee ko te ndeyjooram su fekkee mënu ko summa al aysar mu tëddee ko ci càmmoñam su fekkee mënu ko ala zahri yi mu dal di jaaxaan fa in xaalafa bu fekkee dafa wuute fi salaasati ci ñett yi ñett yi bu fekkee maanaam da nga ko maanaam da nga ciy wuute benn boo ci def rek naa na lam tabtul salaatuhu loola mënta yàq sa julli wal istinaadu wéru wéru wéru alladi wéru gi nga xam ne tabtulu bihi salaatul qaadiri ala tarkihi wéru gi nga xam ne maanaam ki am kattan te bàyyi ko jullim dina ci yàqoo huwa moom allazi mooy li nga xam ne yasqutu dafay wadd dafay daanu bi suqutihi soo daanoo mooy li nga xam ne soo ci wéroo su daanoo nga daanu wa in kaana bu fekkee dafa nekk ne la yasqutu du daanu bi suqutihi ci daanoom fa huwa moom makruhun dañu koo sib wa amma naafilatu wante naafila nag moom fa yajuusu dina dagan lil qaadiri ala al qiyaami ki nga xam ne am na kattanu taxaw ci naafila an yusalliyaha mu julli ko jaalisan ci toog waaye nag walahu nisfu ajri alqaim dina am genn wàllu payu ki nga xam ne dafa naafila moom te jóg taxaw wa yajuusu dina dagan itam an yadxulaha mu dugg ci julli gi gi julli gi nga xam ne naafila la dina dagan mu dugg ci jaalisan ci toogaay wa yaquuma waaye mu jóg taxaw baada dalika gannaaw bu mu toogee woon kon naafila mën nga kii julli taxaw ba mu yàgg dal di toog genn wàll gi aw yadxulaha wala mu dugg ci julli gi qaaiman ci taxawaay waaye jëli sa mu dal di toog baada dalika gannaaw loolu man ngay commencé naafila taxaw ñaari rakaa yeneen ñaari rakaa yi nga dal di toog yeggali baax na ci naafila wala nga toog ci ñaari la ñaari rakk yu njëkk yi ñaari rakk yu mujj yi nga dal di jóg taxaw yeggali ko loolu la wax ne dagan na ci naafila illa an yadxulaha bi niyati alqiyaam fiiha lu dul nag ne da ngaa dugg ci naafila gi waaye nga fas yéene ne damay jóg taxaw comme que da nga fas yéene ne da ngay jóg taxaw su boobaa dootu daganati nga wëlbatiku di toogaat ci julli gi moo tax mu ne fa yamtaniu julusuhu baada dalik gannaaw boo xamee ne da nga fasoon yéene di dugg ci julli gi taxaw kooku dañuy tere nga maanaam gannaaw boo xamee ne fasow fas fas gannaaw boo xamee ne fasoon nga yéene taxaw ci julli gi dañuy tere ci yow nga wëlbatiku di toogaat gannaaw loolu faslun lii benn bunt la goo xam ne mu ngi aju ci julli faat nga di ko fay yajibu dina war qadaa ma fi dimmati fay li nga xam ne moo nekk ci saw loos min asalawaati ca ay julli wala yaxillu du dagan ak tafriitu sàggane fii haa ci julli yooyu nga xam ne daf laa faat sàgganee ku jaaduwul wa man salla ku julli kulla yawmin bés bu nekk nga julli xamsata ayaamin julli juróomi fan fa laysa bi fa laysa bi mufarritin kooku nekkul koo xam ne kii ku sàggan la maanaam bés bu ne boo julli bis bu nekk nga julli julli gi nga julli nga julli waale ci juróomi fan yoo xam ne yi da yoo xam ne yi da nga bàyyi woon seeni julli nee na koo ko sàgganul wa yàq bi haa mën na koy fay itam ala nahwi ma fatathu ci kaw ni nga xam ne noonu la ko julli yi faatee woon in kanat bu fekkee julli yi dafa nekkoon xadariyatan julli teewaay nga xam ne tukki wuloo xadaaha da nga koy fay xadariyatan ci sa teewaay wa in kanat bu fekkee julli ya dafa nekkoon safariyatan julli tukki qadaaha daf koy fay safariyatan ci julli tukki su fekkee da nga doon tukki ñaar-ñaar su ko defee nga fay ñaar-ñaar sawaun moo xam kaana nekk na xiinal qadaahi jamono ba mu koy fay fii xadarin mu nekk ci teewaay aw safarin wala mu nekk ci aw tukki wa tartiibu toftali itam bayna alxaadaratay ni diggante ñaari julli yi nga xam ne dañoo teew wa bayna yasiril fawaiti ak li nga xam ne daf la faat te bëriwul nga julli ko ma an xaajarati boole ko julli gi teew loolu de waajibun lu war la ma a dikri ànd ak fàttale ko nag wa yasiiru li nga xam ne dafa yomb nga xam ne bëriwul ci julli yi nga xam ne moom la ñuy faat arbaa salawaatin ñett ñeenti julli lay doon su boobaa bëriwul fa adna wala lu ko gën a tuuti wa man kaanat alayhi koo xam ne nekk na ci kaw loosam arbaa salawaatin ñeenti julli fa aqalla wala lu ko gën a néew sallaaha daf koy julli qabla alxaadirati li jiitu julli gi teew walaw xaraja waxtuha donte julli gi teew sax sooy fay balaa ngay pare waxtu wa passé itam da ngay dal di julli waxtu yi nga xam ne moo la faatoon nga dugg a julli waxtu yi nga xam ne moo teew donte sax bu fekkee balaa ngay fay lale waxtu yu passé jullil rek waxtu yi nga xam ne ñoo faatoon nga dog a fay wa yajuusu dina dagan itam alqadaau fay fii kulli waqtin ci waxtu wu nekk bu la neexee waxtu wu ne nga julli boo jullee waxtu bi nga fay waxtu wale julli waat waxtu wale nga fay waxtu wa ci topp loolu itam mën nay nekk wala yatanaffalu waaye nag du naafila man ki nga xam ne alayhi dafa nekk ci kawam alqadaau bor julli goo war a fay nga am boru julli ba pare di naafila nee na loolu daganul wala yusalli duha ku am boru julli doo julli julli yoor yoor wala qiyaama ramadaana ku am boru julli doo toog di naafila ramadaan wala yajuusu lahu du dagan ci moom illa shafaa du dul jullit shafaa wal watur ak ak wetar wal fajru ak jullit fajar wal aydaani ak ñaari aydi wal xusuufu wala jant bu ñu jàpp ñuy julli wal istisqaau ak jullit baaw naan yooyu di may nañ la ko gannaaw boo xamee ne bii yaa ngi yore bopp waaye lu bokkul ak loolu nag may ñu la nga di ko julli wa yajuusu dina dagan itam liman ci ñi nga xam ne alayhim day dafa nekk ci seen kaw alqadaau bor boo xam ne dañu ko war a fay ci julli dina dagan ci ñoom an yu salloo ñu julli jamaatan mbooloo bu fekkee dafa am mbooloo moo xam ne ñoo bokk waxtu yoo xam ne yi moo leen faat dina dagan ci ñoom ñu jiital kenn ña ci des nekk ci gannaaw ñu daldi ko julli ita stawat salaatuhum bu fekkee seen julli ñoo yem waaye kii bàyyi tàkkusaan kii bàyyi tusubaar kii bàyyi gée ñooñu seen julli yi yemuñu kon ñooñu duñu mën a julli julli mbooloo kenn ku nekk dafay fay li nga xam ne moom ko bàyyi woon waaye su fekkee ñoom ñëpp ñoo yem julli yu ñu bàyyi kon dina dagan ñu jiital kenn ñoom ñëpp dal di julli jullik mbooloo moo tax mu ne wa yajuusu liman alayhim alqadaau an yusalluha jamaatan ida stawat salaatuhum bu fekkee seen julli ñoo yem wa man nasiya ku fàtte adada ma alayhi min alqadaai limub julli yi nga xam ne moom la war a fay ku ko fàtte salla dafay julli adadan ab lim laa yabqaa ba du des maahu di ànd ak moom chakkun benn sikki chakka xamatuloo ñaati julli moo la faat da ngay julli di julli di julli di julli ba mu wóor la ne lu mu maanaam lu mu tuuti tuuti tuuti yaakaar naa ne lim bii daal maanaam tolloo wutoon ak li nga xam ne moom la faatoon ba sa sikki sàkka dal di jeex su ko defee nga dal di bàyyi baabun fi sax bi lii benn bunt la ci ki nga xam ne dafay julli di jamaj ndax itam nit matul di nga toog di julli di juum wa sujoodu sahwi sujootub juum wala sujootub jamaj fi salaati ci julli sunnatun sunna la fa li nuqsaani koo xam ne dafa jamaj wala nga juum wàññi julli gi kooku sajdataani ñaari sujoot lay sujoot qabla salaami li jiitu muy wax asalaamu aleykum baada tamami tashahudayni gannaaw bu mu montalee ñaari taaya yi yoo xam ne yaziidu dafay dolli baadahuma ca gannaaw ñaari taaya ya tashahudan aaxara beneen taaya wa ziyaadatu ki nga xam ne dafa jamaj am lu mu dolli ci julli ga sajdataani kooku ñaari sujud lay sujud baada salaami gannaaw bu mu waxee assalaamu aleykum yatashahadu yoo xam ne dafay taaya baadahuma gannaaw ñaari taaya yooyu wa yusallimu mu dal di sëlmal taslimatan uxra beneen sëlmal wa man naqasa ku wàññi wa zaada wëlbatiku dolliwaat wàññi nga ci julli gi dolliwaat nga ci julli gi noo koy defaree mu ne sajada dafay sujjóot qabla salaami li jiitu muy sëlmal wa man nasiya waaye képp koo xam ne kii dafa fàtte as sujudal qabli ya sujootu sujud gu njëkk sujud goo xam ne sujudul qabli mooy sujud goo xam ne da nga waroon a da nga waroon a sujud ba pare doog a wax asalaamu aleykum nee na loolu ku ko fàtte xataa sallama ba wëlbatiku sëlmal sajada daf koy sujootaat in kaana qariban bu fekkee jege na masalan bu fekkee ci jàkka ji nga nekk bala ngay génn jàkka ji soo ko fàttale ko da ngay dem nga sujootaat ko wa in taala waaye bu fekkee diggante bi nga ko diggante bi nga paree julli gi ak diggante bi nga ko fàttale ko bu fekkee dafa sori aw xaraja min al masjidi wala nga fàttale ko te bi nga koy fàttale ko fekk na nga génn jàkka ji su boobaa batala yàqu na a sujudu sujud gi te sujjóot gi bu yàqee nag wa tabtulu dafay yàqu salaatu julli gi maahu ànd ak sujjóot ga in kaana bu fekkee dafa nekkoon ala salaasi sunani bu fekkoon da nga bu maanaam bu fekkee léegi la nga wàññi woon wala nga yokk ko dafa nekk ñetti sunna aw aksara wala sax lu ko ëpp min daalika ci loolu wa illaa su dut loolu fala tabtulu kon julli gi du yàqu kon sujjóot gi du yàqu kon dal bu fekkee li jama gi nga li nga yokkoon matul ñetti sunna wala li nga wàññi woon matul ñetti sunna su fekkee bàyyi nga sujjóot ga itam su boobaa yàquwul waaye su fekkee mat na ñetti sujjóot nag boo ko fàttale ko balaa ngay génn jàkk ji da ngay sujjóot waaye su fekkee génn nga jàkk ji doo koy fàttale ko su boobaa sujjóot gi yàqu na te bu sujjóot gi yàqoo julli gi yàquwale naan ko wa man nasiya ku fàtte ak sujjóotul baadiya sujjóot goo xam ne da nga waroon a sëlmal ba pare doga doo koy sujjóot bu fekkee da nga ko fàtte woon sajadahu da nga koy sujjóot walaw baada amin donte diir bi nga ko fàttale ko sax mat na at wa man naqasa koo xam ne kii nag dafa wàññi faridatan benn farata ci julli gi fala yujzihi sujudu kooku sujud du ko doy fala yujzihi sujudu anha kooku sujud mënu koy mënu koy remplacer ndax farata nga yàq te farata soo ko yàqi sujud mënu koy deferaat li koy deferaat mooy nga delloo si waat farata boobu wa man naqasa koo xam ne kii dafa wàññi alfadaila ngëneel ngëneel ci julli fala sujuda alayhi kooku sujud waru ko wala yakunu te du nekk itam a sujudul qabliyu sujud boo xam ne sujud bu njëkk la mënul nekk illa li tarki sunnatayni lu dul ne ki war a sujjóot dafa bàyyi woon ñaari sunna fa aksara wala lu ëpp ñaari sunna wa amma sunnatul waxida wante ku bàyyi benn sunna fala sujjóoda laha kooka sujjóot waru ko illa sirra lu dul nga yelu ci place boo waroon a biralee wal jahra wala nga biral ci place boo waroon a yeloo fa man asarra képp koo xam ne kii dafa waroon a yelu fil jahri ci place bu mu waroon a biralee kooku sajada dafay sujjóot qabla salaami li jiitu muy wax asalaamaaleykum wa man jahara képp koo xam ne kii dafa biral fi sirri ci julli gu mu waroon a yelu sajada kooku dafay sujjóot baada salaam gannaaw bu mu sëlami contraire bi lay indi wa man takallama képp koo xam ne kii nag dafa wax saaxiyan ti jomaj wala mu juum dal di wax sajada kooku dafay sujjóot baada salaam gannaaw bu mu waxee asalaamaaleykum wa man sallama képp koo xam ne kii dafa sëlmal min rakaatayni ci ñaari rakaa nga doon julli ñeenti rakaa def ñaari rakaa dal di sëlmal saaxiyan ti juum moo la ko tax a def sajada kooka dafay sujud baada salaam gannaaw bu mu waxee asalaamualeykum wa man zaada ku dolli fi salaati ci julli rakaatan benn rakaa aw rakaatayni wala ñaari rakaa sajada dafay sujud baada salaam gannaaw boo waxee asalaamualeykum wa man zaada ku dolli fi salaati ci julli mislaha lu tolli ni julli ga nga waroon a julli timis ñetti rakaa nga julli juróom benn rakaa wala nga waroon a julli tàkkusaan ñeenti rakaa la nga julli juróom ñetti rakaa loolu boo ko defee batalat julli ga dafay dal di yàqu wa man shakka ku am sikki sàkka nag fii kamali salaatihi ndax julli mat na wala julli matul ataa dafay indi bi ma shakka fii ca la nga xam ne moom la amoon sikki sàkka waa julli gi ñaari rakaa ci des wala julli gi benn rakaa ci des bu fekkee sa sikki sàkk moo nekkoon ñaari rakaa moo ci des indil ñaari rakaa su fekkee sa sikki sàkk benn rakaa moom nga doon xalaat ndax moo ci desam desu ci indil benn rakaa wa shakku sikki sàkka fi nuqsaani ci wàññi julli gi li taxaquqihi da nga koy mottali ba mu mat su fekkee da nga julli ba mu yàgg nga am sikki sàkk ndax julli gi mat na wala matul ñu ne mottalil moo tax mu ne moo tax mu ne wa shakku fi nuqsaani li taxaquqihi da ngay julli ba mu mat fa man shakka ku am sikki sàkka fii rakaatin ci benn rakaa aw sajdatin wala benn sujjóot ataa biha da nga koy indi waaw ndax man rakaa bi indi naa ko wala indiwuma ko jogal nga indi ko waaw ndax sujjóot bi sujjóot naa ko wala sujjóotuma ko jogal nga sujjóot ko soo paree wa sajada su su paree mu dal di sujjóot nag baada salaam gannaaw bu mu sëlmali ba pare wa in shakka bu fekkee dafa am sikki sàkka fi salaami ndax wax na assalaamu aleykum wala déet sallama dafay dal di sëlmal in kaana qariban bu fekkee ne diggante bi mu ko fàttale koo jege nag maanaam génnagul jàkka ji wala sujuda alayhi su boobaa kooku amatul sujud qabli amatul sujud baadi da nga amoon sikki sàkk ndax ndax wax nga assalaamu aleykum wax ko rek mu dal di yeex bu fekkee jege na waratooy sujud baadi waratooy sujud qabli wa in taala bu fekkee ne distance bi nga fàttale ko ndax wax nga asalaamaaleykum wala waxoo asalaamaaleykum dafa sori su booba batalat salaatuhu julli gi dafay dal di yàqu wal mu waswisu ki nga xam ne dafay jax-jaxal yatruku dafay bàyyi al waswasata jax-jaxle ji min qalbihi ci xolam wala yaati waaye dootu jar muy indi waat bi ma shakka fii ci li nga xam ne moom la amoon sikki sàkka ndax am na nit ñoo xam ne dañuy faral di naax su boobaa sikki sàkka gi nekkoon ci sa xol bi da nga koy dindi te la nga xam ne moom nga amoon sikki sàkka ndax def nga ko defut ko nee na loolu dootu jar nga di ko defaat walakin wante wante yas juddu dafay sujud nag baada salaam gannaaw bu mu sëlmalee ba pare sawaun moo xam shakka dafa amoon sikki sàkka fi ziyaadatin ne moom dolli na ci julli bi aw nuqsaanin wala mu amoon sikki sàkka ndax moom wàññi na ci julli gi wala déet wa man jahara képp ku biral fil xunóot yi ci xunóot fala sujuda alayhi kooku amul sujud baadi amul sujud qabli walakinahu wante nag moom yukrahu dinañu sit amduhu nga tayyi ko comme ça nga tayyi di jàng xunóot allahumma inna nastainuka wa nastaxfiruka wa numinu bika wa natawakkalu alayka wa naxnau laka wa naxnau laka wa naxnau ba mu jeex muy xunóot bu fekkee da nga koo biral su boobaa sujjóot amul ci waaye nag sit nañ ko nga tayyi ko di ko biral liñ bëgg ci xunóot mooy nga di ko jàng ndànk wa man zaada suurata képp ku dolli benn saar fi rakaatay ni ci ñaari rakaa al axiratay ni yu mujj yi ndax ñaari rakaa yu mujj yi liñ ci taamu mooy nga jàng faatiha kese yow ñaari rakaa yu mujj yi nga jàng faatiha tegaat ci saar nee na kooku fala sujjóota alayhi kooku doo ko sujjóotal wa man samia képp koo xam ne kii daf doon julli dal di dégg dikra muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga dégg koo xam ne kii dafa tudd muhammad wa huwa fi salaati fekk jamono bi nga koy dégg yaa ngi ci julli fa salla alayhi nga dal di julli ci kawam nga dégg ñu ne muhammad jamono bi ngay julli nga ne sallallahu alayhi wa sallam nee na ko def loolu fala shay'a alayhi dara nekkul ci dara nekkul ci sawaun moo xam kaana nekk na moom waajooju saahiyan mu juum tudd ko aw aamidan wala mu tayyu ko waaye daal dara nekkul ci moo xam ba mu koy tudd aw qaaiman mu jóg taxaw ci julli gi dégg ñu tudd Mohamed mu julli ci koom aw jaalisan wala muy julli toog dégg ñu tudd Seydina Mohamed mu julli ci koom loolu yépp dara nekkul ci wa man qaraa ku jàng suuratay ni ñaari saar fa aksara wala sax lu ko ëpp fii rakaatin waaxidatin ci benn rakaa benn rakaa nga julli ci lu maanaam nga jàng ci lu mat ñaari saar wala lu ko ëpp aw xaraja min suuratin ila suura wala nga commencé benn saar ba mu yàgg arrêté ko demaat ca beneen saar bu bokkul ak moom aw rakaa wala mu dal di rukoo qabla tamaami suura li jiitu saar bi pare jaa ngi jàng saar bi pareegul nga dagg ko dal di rukoo fala shay'a alayhi kooku dara nekkut ci fi jamii daalika ci loolu yépp dara ayu ci nee na wa man ashaara képp koo xam ne kii dafa junj dafa joxoñ fi salaatihi ci jullim bi bi yeddihi ci loxoom ngay julli di joxoñ ci sa loxo aw rasihi wala boppam ngay julli di yëngal sa bopp di am looy wane fala shay'a alayhi nee na kooku dara nekkul ci wa man karrara alfatihata képp ku bamtu fatiha saahiyan te juum moo tax nga bamtu fatiha nga jàng fatiha ñaari yoon sajada kooku dafay sujjóot baada salaam gannaaw bu mu gannaaw bu mu sëlmali gannaaw bu mu jullee ba julli gi jeex mu taaya wax asalaamu aleykum dafay dal di sujjóotaat ñaari sujjóot jóg taaya sëlmal julli ko doog a jeex wa in kaana bu fekkee jamono ba muy bamtu fatiha bi aamidan daf koo tayyi fa zaahiru li gën a bari ci wax yi al butlaanu mooy ne julli ga yàqu na wa man tazakkara képp ko fàttaliku nag as suurata benn saar baada inxinaa'ihi aw baada inxinaa'ihi gannaaw bu mu sëggee ila rukoo i jëm ci rukoo fala yarji'u ilayha kooku dootu wëlbatiku di delluwaat di jéem a jàngat saar bi masalan jàng nga fatiha war nga ciy teg saar nga fàtte ko dal di rukkoo bi nga rukkoo avant ngay siggi nga fàttale ko ne waaye man kat des na benn saar boo xam ne bi jànguma ko woon nee na dootu jër ngay dootu jër ngay siggiwaat di jàngat saar bi continuer ndax rukkoo farata la te saar bi ngay tegaat ci fatiha sunna la kon ñu gis ne sunna warul folli farata farata nag mën nay folli sunna wa man tatakkara képp ku fàttaleku asirra ne moom dafa waroon a yelu awil jahara wala dafa waroon a biral qabla rukuuci li jiitu muy rukoo aadal qiraata dafay bamtuwaat jàng masalan ngay julli mu wóor la ne da nga waroon a biral nga dal di yelu wala ngay julli mu wóor la ne da nga waroon a yelu nga dal di biral waaye bi nga koy fàttale ko nag booba rukoo aguloo kooka da ngay arrêté dellu bamtuwaat saar ba dal di ko yelu wala nga bamtuwaat saar ba dal di ko biral moo tax mu ne aadal qiraata kooka dafay bamtuwaat jàng ba fa in kaana dalika bu fekkee loolu dafa nekk fi suurati ci aw saar waxdaha moom dong aadaha dafay bamtuwaat saar ba wala sujuda alayhi waaye nag sujud waru ko wa in kaana bu fekkee dafa nekk fil fatihati ci fatiha aadaha da ngay bamtuwaat fatiha ba wastajada su ko defee mu dal di sujud nag baada salaam gannaaw bu mu sëlmalee ba pare